bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule le mercato sur 13 TV mbokk yi dal ci mercato sur 13 TV e jamono ji nga xamné Franck Frank Lampard mo ngi wut ab gardien ngir concurrencer Kepa Arrizabalaga ci poste gardien de but Chelsea ñu ngi gëna bëgg portier international sénégalais bi nekk ci stade de Rennes muy Edouard Mendy Blues sax def nañ ñaareelu offre bu am solo ñi nga xamné ñoo di breton yi buñ sukkandiko ci xibaar yu ko ci offre Chelsea bi mu ngi ci 20 millions d'euros Légui nak dirigeant breton yi ñom ñoo ci Liverpool ñu ngay waaj a def ab offre ngir mën a jënd Ismaïla Sarr Reds yi xam nañu léegi ñaata la ñu war a génne ci ay koppar ngir mën a jënd ancien René bi bu ñu sukkandiku ci The Watford mu ngi laaj 40 millions de livres maanaam 45 millions d'euros ngir mën a jaay seen attaquant sénégalais bi nga xam ne am na contrat ak ñoom ba 2024 mu nekk cadre effectif bu Stade de Reims Boulaye Dia mi dugaloon 7 ci 24 matchs yu championnat am na ab bon de bu fekkee ne club am jot nañ offre bu mucc ayib moom mi nga xam ne ñu ngi ko xayma ci lu tollok 10 millions d'euros amna ñaari club yu ko soxla bu ñu ci l'équipe attaquant sénégalais bi am 23 ans FC Porto bëgg nañu ko naka nonit Brighton ci sud bu Angleterre Cheikh Bambadien am 19 ans dina def ay essai ci Olympique de Marseille attaquant bi nekk ci FC dugaloon 13 buts ci 13 matchs ci toute compétition confondue saison bi wessu mo xam championnat la wala coupe de la ligue quitté na Sénégal ta jamono ji mu ngi ci sol français bi ngir mëna a xamanté a ay futurs coéquipiers légui léegi na Mamadou Diarra dem na formation bi di Giresunspor, Spor club la 2 deuxième division turque club bi moko xamlé le ci compte Twitter fatali né Mamadou Diarra ancien bu Sport. bi nga xamné Jaraf lañu ko formé na capitaine équipe nationale moins de 20 ans jeune footballeur bi jotna joganté jogante matchs saison bi weesu ci maillot Bursaspor dugal ñaari but. Sergio Aurier mi nga xam ne it Milan AC soxla na ko ci ay xabaar nee nañu nangu na dem ton bu ñu sukkandikoo ci Daily Star latéral ivoirien bi ñoom waa Tottenham ñu ngi ko doon xalaata échangé ak Matt Doherty mi nga xam ne José Mourinho bëgg na ko ngir mu renforcer équipe am di Tottenham. L'histoire Lionel Messi prend un autre tournant. La Liga vient de produire un communiqué expliquant que si Lionel Messi ne paye pas sa clause libératoire, elle ne délivrera pas le certificat nécessaire au départ du joueur. Courtisé par Carlo Ancelotti et les depuis plusieurs mois, James Rodriguez pourrait bientôt s'engager avec le club anglais. Indésirable au Real Madrid, le milieu offensif colombien serait attendu en début de semaine prochaine outre-Manche afin d'y passer sa visite médicale. Selon Talksport, Sport, le meneur de jeu de 29 ans serait prêté à Everton jusqu'à la fin de son contrat en juin 2021. Après avoir bouclé l'arrivée record de Rodrigo Moreno, Leeds a également officialisé ce samedi le transfert de Robin Koch, appelé en sélection allemande pour la Ligue des Nations. Le défenseur de 24 ans a quitté Fribourg pour un peu moins de 15 millions d'euros et s'est engagé avec les Peacocks jusqu'en 2024. Tottenham annonce ce dimanche la signature de Matt Doherty pour 4 ans. L'arrière droit irlandais, âgé de 29 ans, avec 9 sélections, arrive de Wolverhampton pour 18,5 millions d'euros. L'assimilant a pris la main dans le dossier Tonali le duel auquel se livrent les deux clubs milanais devrait tourner à l'avantage des Rossoneri pour le jeune milieu de terrain italien de 20 ans. La négociation entre Brescia et l'Inter pour Sandro Tonali est au point mort selon la Gazzetta dello Sport, qui confirme le sentiment diffusé la veille par le président de Brescia qui louait le professionnalisme de Paolo Maldini. Les négociations en cours pourraient s'arrêter sur un transfert de 38 millions d'euros plus 3 de bonus. Après six excellents mois, Zlatan Ibrahimovic était en fin de contrat à l'AC Milan. Le club lombard a décidé de prolonger le bail de l'attaquant suédois, c'est officiel depuis ce dimanche matin. Arrivé à l'Inter en janvier en provenance de Tottenham pour 27,5 millions d'euros, Christian Eriksen, 28 ans, pourrait déjà quitter le club selon le Corriere dello Sport. Le Danois, qui n'a pas convaincu Antonio Conte, serait déjà proposé en Angleterre. L'Inter espérerait récupérer 50 millions d'euros. Selon les informations de Sport, l'international de la Céleste Luis Suarez, 33 ans, aurait eu au téléphone Pavel Nedved, ancien grand joueur de la Juventus Turin et vice-président de cette dernière, Toutefois, l'avant-centre du Barça serait en concurrence avec Edin Zeko, l'attaquant de l'AS Roma. Cet été, le champion d'Italie compte bien se renforcer en attaque pour plaire à Andrea Pirlo et surtout accompagner Paolo Dybala et Cristiano Ronaldo. L'international japonais de 33 ans Yuto Nagatomo, 122 sélections dont le contrat avec Galatasaray a expiré en juin, serait courtisé par l'Olympique de Marseille. Selon l'équipe, il pourrait devenir la doublure de Jordan Amavi ñu jeexale ak bonus sport ci 98e édition bu Community Shield Arsenal mu ngi doon ak Liverpool bu Sadio Mané Gunners yi ñoo daan ci tiro bi ci benn match bo xamé ne na suspense lolu te Gabonais bi di Aubameyang dugaloon bi bu ñëkk bi laata Minamino di égaliser ak victoire bi Gunners yi gaddu nañ coupe bile bi di 16e fois mu am 18 ans Youssoupha Badji mu ngi wane bopam bu baax ci championnat bu Belgique ci saison pro bu bi bile jeune attaquant sénégalais bi dugal na xaat ñaari but ci ñetti jongante ak FC Bruges samedi ci ngone bi ñuy daje ak Genk mom motax ba clubum gagné match bi ginnaw bu mu dugalee bitu victoire bi score final di 2-1 pour Bruges Zulte Waregem ñom mën nañoo gërëm Ibrahima Seck mom mi nga xamné mo dougal benn but bu jonganté bi mom Sénégal bi tax ba équipe bam gàddu seen jongante bi doxone sen diggante ak Moucron ci deuxième journée bu championnat bu Belgique attaquant sénégalais bi di Aliou Badji moom it na bopam bu baax samedi ci ngone diggante clubum ak Al Masri ci 23e journée bu championnat égyptien ancien joueur bu Casa Sport bi bi moo porté équipe bam ba tax ñu dugal bi bu njëkk ci jongante bi Al Ahli di clubam moo mujjee daan ci score 2 buts à 0. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.